waane sama ngoro ma ko mayul damay waxtaan bu nu jël kàddu ko ca gën ka gën a rafet ak ñi ñi ñuy tànn ka ca amal njariñ yëmbal ñu jël kooku loolu laa def bi moo xam ne da nga ñëw ci laa dem seeti mus euh, euh, daam mbaw dama woo daam daam ñëw ñu waxtaan ma jóge fa dem kër Moussa Sy mu waxtaan ak moom jóge fa dem kër Pape Diop ñu waxtaan ci li nga xamante ne nii yaa ngi nësër pour yëmbal sud gii te dama xam ni dama waxtaan ak yow am lu bari loo xam ne jëlewaat naa ko ci yow ku nekk vice président wu banque mondiale nekk ministre Macky Sall am fu mu la teg wóolu la soo ñëwee ne damaa bëgg maire yëmbal sud xaalis taxul dara taxul da ngaa am asaka joo war a fay yëmbal sud moo tax nga ni dangay ñëw jël yëmbal sud ci sunu biir waxtaan feeñ na ca nga ni sa waajur fii la ne woon di def lu baax defi teraanga te muy dëgg parce que am na nañu ay jamono ñaari robinet ñoo fi ne woon mooy robinet Thierno Ndiaye bi ak robinet Pënd xaw ma sa way jur bu wàccaan moo daan root oto bi mu yor ñëw may askanu yëpp ndox ndox moomu daan nit muy seeral xoolu nit ñi sab xol yàlla na sedd noonu le 23 janvier bii di ñëw incha allah am naa mbégte trop recevoir la fii et may sant di gërëm samay nit waxuma ñuy samay responsable ñi nga xam ne dama leen ne nitoo nitoo ma ci yëmbal gi ku mel ni Thierno Diop ku mel ni Modou Mbène ku mel ni Gaajo gaaw yàlla def na li ñuy gisee bariwul mais cër la ma jox ma delloo ko cër boobu amaana jotaay bu nu dajee sax bu ma waxee lu dul noonu sax moom lépp lu ma wax rek neex na kon Gaajo maa ngi lay sant di gërëm am ñaari rakk yoo xamante nii di euh, faut ma citer leen nommément muy Bamba mi ak Moussa monsieur le ministre maa monsieur le maire Bamba ak Moussa xale yu lay jàppale ñuy dox doxub suuf doxub suuf boo xam ne dafa am efficacité boo xamante nii foo ko après weesu na foofu Moussa damay wax ak moom des fois dafay mel ni xamaa nañu ay at te tey jii laa koy doo gis téléphone rek lañu daan wax donc may sant di gërëm. Euh, daa mbaw mi bi ñu euh, pandémie bi amee ñu séddale fépp ceeb ak suukar ak lépp joxuñu waa koñam xaw ma ñaati toll la jox de waane du benn xaw ma ñaati toll la bëgguma wax lu ma xamul xaw ma ñaati toll la waane jënd na ay tonnes quartier ba nga xamante merci jërëjëf mu jël ay mu toj jël tonnes yooyu yëpp séddale ko koñam kon kii kon kii bu àndee ak yow lu mu wax quartier waa Alassane Mbow du ma ne quartier Alassane Mbow quartier moog Moussa Sy ñoo bokk quartier ba léegi ñoom ñaar ñi euh, dañ leen wuyo Moussa Sy mi dëkk ci quartier ba bi nawet bi ñëwee mu gis nit ñu sonn mu jël pompe bu mag jox ko waa koñ ba am na lu bëri loo xam ne soulagé na population boobu ci ci ci ndox mi donc monsieur le maire de la commune de Yeumbeul Sud dama laa invité fii pour wan la responsable yi nga xamante ànd naa ak ñoom ak pois politique bi nga xam mën nañ la ko apporteel parce que li ñu soxla rek mooy mbooloo munu voteel ñu gañee maire bi bu ñu gañee maire bi ba pare nag am na yoo xamante ni amaana liñ si daan am xel mu ñaaw wala ñu si am ñu koy tiit yàlla mun naa def loolu dina dàq ci kàttanu yàlla loolu daal yaakaar nañu ko ci yow et bëgg nañu euh, commune Yeumbeul Sud bi dañ ko bëggee bu yëmbal bu bees boobu ngeen génne man adhéré naa ci yëmbal bu bees te yëmbal bu bees boobu yëmbal bu bees boobu de du jaar ci loxo yenn yu dul say loxo mu neex yàlla di ko def lenn daal moo ma doon jaaxal ma wax ak yow sa ministère ma wax jox la nga wax delloo ma ma ñëw sa centre nga ma wax nga wax delloom ma nga campagne bu mu jeex te ñëwoo kër Thierno Ndiaye ni damay dagaan baatu yëmbal sud boobaa mënuma laa assuré dara waaye ne comme yàlla def na def nga ko nag incha rabbi bu neex yàlla sunu boroom maire bi gisuma beneen fauteuil bu dul bi ma la jox moo xam ne duñ ko jox allah asalaamaaleykum wa rahmatulah di gërëm di gërëm di sant di gërëm di sant Massaer Ndiaye mi daf maa bëgg ngir yàlla daf ma bëgg ngir yàlla man aw ma lu ma mën a wax lu dul Massaer jërëjëf Xadi Ngom Marème Ngom dañu am fidélité boo xam ne maar day taal ba ma ànd ak ñoom yàgg nañu waaye dañuy dem di def ci man loo xam ne fekkewu ma ñu may cëral daaw da ñu ngi mii ku dëggu la dañuy ànd mu ni ma Pape li may ànd moom yëpp foog naa ne PDS la bokk ñu dem ba ci biir mu ne ma Pape il ma defal la benn précision man bokkuma PDS man mouvement fa Thierno Ndiaye laa bokk parce que sa waajur dafa am loo xam ne dama fa jaar ak moom kon soo taxawalee lu mel nii aw ma droit bañ cee bokk ak beneen parti bu mu mënti bokk dem nañu ba mu présenté ma Mamour Cissé ñu waxtaan Mamour Cissé comprendre loolu ma comprendre loolu donc fi mu ne ñi ngi ci euh, élection locale yi ëllëg xamuñu nu muy demee ëllëg xamuñu nu ni muy demee mi ngi dépendre ci yow ni muy demee ëllëg dépendreul ci kenn ku dul ci yow monsieur le ministre monsieur le ministre ñu ngi ànd ak yow di conserver sunu parti nekk sunu parti di ci xeex bu ñu jógee ci lii ah sunu parti dem na ñoo xam ne àndoon na ñoom dem nañu mais ñun yow lañu ñu choisir pour yàlla jox maire yi bu ñu jógee ci lii nag yàlla mun naa indi lu ne donc di sant di gërëm moo di benn Nogoy Diop monsieur le maire France la nekk jël crédit mu woo ma lu nit wax lu yàgg yàgg yàgg ci yow mun ma Pape su ma sayoon nga ànd ak monsieur le maire monsieur le ministre Amadou Hott ma ne mu Nogay ñu bëri wax nañ ma loolu maa ngi ciy xalaat mais bu ma waxtaanee ak semaine bu juboo lu ñu d' accord d' accord naa ci yàlla def na d' accord nañu d' accord nu ànd ak yow daanu ànd ak yow te campagne bi ñuy def nii ñu ngi may wax ni léegi pour te dire l' Euh, de la démarche de Bamba mi nga xamante ni ma côté Kër Keita chez Keita euh, suñu doole néew na fa ak waxtu yi dama julli ñëw toog maa ngi bu yàggul lañ ma woo di ma wax pap nu ñuy def billaahi laa la wallahi tallaahi man leen xaar leen ma dinaa ñëw booba waxaguñu sax wa ilaa Bamba laa waxal ma ne ko nag comme bi mu doon waxee loolu ma ne kon foofu may dem nooyal ko ba mu nooy responsable yi nga xam ne ku fi nekk ku si nekk dafa posé daam dina dugg ko ñam Moussa dina dugg ko ñam ko ñam Marème Ngom dina dugg ko ñam Aram Ngom dina suite sam-sam am na koo xamante ni moom moo fay dem wax ak ñoom man tamit dinaa fa dem bamba bi dama ko promettre ani bamba dama ko promettre ni bu may dem Cheikh Keita yow laay àndal comme ça nga xool ni maa engagé wu na yàlla dinañu dimbali ba ndam li ñu bëgg yàlla mel ni ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. Eh, dama gis dama gis dama gis dama gis sama copain sama mer sama grand merci da merci Babou <coughs> eh, wax nga dëgg nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. par exemple maa maa ngi ci sama maa ngi ci sama mère sama grand dama dama dama dese ñaar muy sama yaay booy Yacine Ndiaye mi nga xam mooy taaw Abi Fall ak ki nga xamante ni mooy xaritu Abi Fall di sama soxna moom mooy xaritam ah mu ngi noonu moom laay moom laay lijjanti moom dafa ñëw dafa ñëw dafa ñëw na na na Abi na Abi na Abi na Abi na Abi bokk woon ak militant wu Thierno Ndiaye noonu la ndey ba mii uufe militant wu Papa Ndiaye à la limite fois daf ah merci jërëjëf kon mi ngi noonu kon nag moom dama koy ñaanal yàlla nañu dund ba muur njabootam gii ñuy sëy am salaire yu baax am société yu baax am liggéey yu baax jërë ngeen jëf maa ngi remercier sama famille bi yëpp sama njaboot gi yëpp kontaan naa Fatou Wuri Fatou Wuri ba mi dégg naa li muy dox ci koñ bi di waxtaan moo ay xaritam pour que ñu élire le maire Amadou ot waaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp ku nekk ci tuuram ak ci santam euh, di jiital ci nuyoo yi nag sunu ñaari imaam yi fi nekk imaam Cheikh Diop ak imaam euh, Serigne Ndom euh, di nuyu également sunu papa yi fa nekk sunu yaay yi sunu bàjjan yi ak vraiment kilifa yi fi toog yëpp jiital ci nuyoo gi nag sunu grand frère Papa Ndiaye. Papa Ndiaye ak soxnaam ak njabootam ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bootu ci gannaawam euh, su dee ñi nga xam ne ay jigéen lan ma jël nuyoo bi yëpp teg ko ci loxo madame le maire donc xadi Ngom mu jàllale ko ci jigéen yi fi toog yëpp sudee dee góor la aussi mën naa ko teg ci loxo euh, Moussa Sy wala teg ko ci loxo daam wala teg ko ci loxo également Pape Diop également donc ngeen nuyul ma ñëpp ñu fi teew aussi euh, ci sama délégation ma jël nuyo bi teg ko ci loxo El son excellence Modou Mbène Diop euh, mu jox ko no Thierno Diop Thierno Diop jàllale ko ñëpp incha allah euh, grand saer ñu ngi lay nuyu aussi bu baax di ne vraiment am na mbégte bu rëy rëy mbégte bu rëy rëy si sunu jotaayu tey bi li ko waral mooy euh, man Pape njaay dama la daan dégg euh, bi nu gisee yàggul wante témoignage yi ma fi dégg wax ju rafet yi ma fi dégg loolu tax na ma ñeme la tax na aussi ma wóolu la tax na aussi vraiment ma mën a man sunu diggante ma gën a jël engagement jëloon naa engagement au bureau sax mais dama bëggoon fii ci say nit say dëkkandoo sa njaboot euh, tendre la encore la mais officiellement defoon naa ko déjà au bureau mais fii fi ñëpp toogee ñëpp toog dama la bëgg tàllalaat loxo euh, tàllal loxo ngir nga jàppale nu euh, waxun sax nga jóge fi nga nekk mais nga tàllal sa loxo rek jàppale nu nga toog pour le moment nga toog fi nga toog parce que foog naa ne li nga wax ak li madame Khady Ngom waxe leer na nàññ naññ madame Khady Ngom nee na du jóge suñu kër baay man damay ne toogal sa kër baay nga tàllal loxo rek doy na foog naa ne Pape Ndiaye fi ngeen toog rek di tàllal seeni loxo di woote jël seen tànk dem gis nit yi di def ay ñaan pour man lool day nanu sëkk incha allah te am naa ci njorto bu rafet fekki si bi ngeen nu fekk ci ci élection bi yaakaar naa ne dina yàlla dina ci may sutura maynu ci ndam